tey dama ñëwoon ci ay ci Saint-Louis ci Ndar pour euh, présider CRD bi nga xam ni madame le gouverneur moo ñu ko yombalal jàppale ñu pour que l'ensemble des acteurs donc du sport mais également ñi nga xam ne ñooy membre CRD bi yëpp ñëw jàppale ñu ci événement majeur bi nga xam ni Saint-Louis moo am moom la am honneur abrité mooy grand prix bu chef de l'État son excellence Macky Sall ci mën naa ni dans le domaine de la lutte lutte traditionnelle chaque année donc xam nga ministère bi day organiser drapeau bi nga xam moom lañ jagleel président la République cette année nag Saint-Louis moo am honneur abrité mën naa ne événement majeur boobu muy événement yi nga xam ne ci gën a mag la ci ministère bi tey nag ñu ñëwoon ànd ko CNG bi ak madame la gouverneur pour waxtaan ci moralité pratique yi nan lañ ko war a organiser donc loolu nag waxtaan nañ ci ñun ñëpp te points yi nga xam ni yëpp mën naa ni CNG bi soulevé woon na ko mën naa ni l'essentiel des points mën naa ni service bi teewoon jël nañ ko en charge te ki ci njëkk nag mooy mën naa ni la municipalité de Saint-Louis donc euh, ah, mairie Saint-Louis moom mën hmm. naa ni points yi nga xam ni yëpp li jëm ci logistique l'essentiel des points jël na ko en charge et c'est l'occasion pour ñun ñu remercier mais également féliciter le maire de Saint-Louis donc notre collègue monsieur le maire Mansour Faye sant ko ci générosité am ak disponibilité am ndax son représentant euh, l'adjoint au maire chargé de sport qui est un sportif donc moom aussi teewal na ko jëmmal na ko mais également lépp li nga xam ni euh, préoccupation la woon bu CNG bi mën naa ni jël na ko en charge donc ñooy remercier également l'ensemble des chefs de service yi nga xam ni tey monsieur madame le gouverneur woon na leen ñoom ñëpp joxe nañu ay mën naa ne ay engagement pour que l'essentiel des points yi nga xam ne soulevé woon nañ ko fi ñu mën ko jël en charge donc defe naa ni daal bi ñu paree bi tey jàpp nañu ni incha allahu rabbi li nga xam ni mooy euh, mën naa ni euh, moo jëm ci euh, drapeau bi mën naa ni disposition yëpp mën naa ni macha allah jël nañ ko te am nañu yaakaar ni dinañ dem ci événement bi donc ci jàmm mais également mu nekk un événement réussi mais un événement exceptionnel beneen bi ci des mooy cette année dañu dugal innovation mooy dañu dañu am lu yees luñ ci dugal liñ ci dugal lu yees nag mooy li nga xam ni moo jëm ci dugal petite catégorie mooy xale yi dugal leen ci mën naa ni drapeau chef de l'État te loolu dañ ko def en perspective mooy jëm ci Jeux olympiques deux mille vingt six na xam ngeen ni Sénégal dafa bénéficier wu commune ci confiance communauté internationale pour organiser Jeux olympiques en deux mille vingt six. loolu nag Sénégal daf ci am double défi défi wu organisation mooy vraiment mu nekk organisation bu mucc ayib ndax événement mondial la mais également défi sportif.